tey ma wax la la xam nga jooy naa jour bu jour jour jour jour bu résultat deuxième tour yi génne fii en direct à l'antenne tey ma wax leen lu loo xam ne ñu bëri xamuñ ko ñu bëri day wax ne ah dafa faral Macky ba dafa jooy non mm-hmm. dama génn di voté ji fii laa toog sept la na monte tu es sous pression mm-hmm. sept lañ ñëw toog fi téye antenne li may wax nii am ñi ñëpp fekkee nañ ko sept ma téye antenne ba treize heures Adama Kande ñëw ma ne ko Adama kaay toog parce que man damay foog ma voté ba may voté ma dajanteeg benn kilifa bu nekk ci biir parti démocratique sénégalais mu tudd turam. Mhm. mu may tooñ. di wax ne ah on te regarde rek mais on verra à la fin du truc on va régler ce problème très rapidement. ñu ñëw deuxième tour ñu ñëw toog d'abord premier tour élection présidentielle c'est la 2STV qui a annoncé en premier lieu. Mhm. il y aura un second tour Macky Wade man maa ko wax. Mhm. dëgg la parce que amoon na beneen télé sax. bu def 53 pour cent. Mhm. Wade passe au premier tour avec 53 ah. pour cent ak un site internet. dëgg dugg ci loolu man maa toog. takk oreillette régie. na ma am na kuy annoncer résultat ma ne leen c'est impossible. dëgg un second tour Macky Wade. fii. gis nga loolu mooy. passage la woon gis nga lan moo ma jooylooy dama toog euh, mu wax ma loolu ma tiit xam nga deuxième tour ñu tiit après benn instant euh, Ibrahima Sall bu nekkoon Sicap moom leen dépêché woon pour mu ñëw ci plateau bi El Hadj Ndiaye toog ne à côté économiste waaw El Hadj toog ne à côté ñu toog ni toogee noonu maa ngi wax ñu ñuy jox résultat yi maa ngi wax sax tubaab bu jubul Mhm. parce que maa ngi wax ne c'est des tendances lourdes difficilement renversables je pense que Macky Sall le passe mhm. va devenir notre président de la République notre prochain président maa ngi wax en même temps j'espère que le président Wade va apple très rapidement Macky Sall pour désamorcer la tension j'espère je l'espère je l'espère après résultat yi di génn nii parce que dafa amoon benn tablette bu booy créé woon sunu 2012 ma teg ni tablette yi di xool résultat yi di ko wax ba à un certain moment ma jot man un ami qui a des renseignements qui me dit c'est bouclé ma def ma dafa ko ay point d'interrogation yu bari. na moo bouclé waaw lan moo bouclé <laughs> mu ne ma mu ne ma mu ne ma on est en de faire le cordon sécuritaire au niveau de Radisson. Mhm. parce que foofu la Macky Sall nekkoon. et au niveau de siège de la l'APR. ma ne ko donc donc on, on reconnaît ma ne ko donc on reconnaît que solo le nouveau président mu ne ma waaye ce qui explique le cordon sécuritaire sécuritaire boobu laa ne boo déggoo li ma wax boobu maa ngi toog ne on une république Ouais. Le Sénégal est une république. C'est vrai loolu moo war la pour wane ne. Mm-hmm. ñun Sénégal république lañ yor. boo xam ne on a une armée. Mm -hmm. une des forces de sécurité yoo xam ne du ñu nangu mukk. Mm-hmm. réew mi balancé wu ci benn côté. Mm-hmm. loolu moo ma wadd loo ay xéwal sama sama rom nga ko jooyloo voilà mais ak gis nañu aussi que temps yi xam nga Pape Alé à ce rythme de scandale xam nga qui sortent tous les jours pensez-vous que le Sénégal est assis sur une bombe foncière si si waxuma ko sa président moo ko wax suñu président mhm. sa leader politique moo ko wax moom moo ko wax centre conférence internationale Abdou Diouf moo ne à ce Si on ne règle pas le foncier au Sénégal, ce sera une bombe.